ودكدكت الجبال لهيبته وسبح الرعد بحمده والملائكة من قيفته اللهم بأسمائك البهية والشعاعات العرشية والكلمات الربانية والطلاسيم العبرانية والأقسام الملكوتية والأسرار السريانية wa tasaabiixi lyunaaniyati ilaahi bi rafiici samaai wa quwati alardi wa haybati shams wa bi sirri alacdami alladi bayna aldulmati wannuur yaa man kasaa quluubu alcaarifiina min nuuri aluluhiya wa yaa man arsala alriyaaxa nushran bayna yaday raxmati ilaahi salli ala sayidina muhammad salaatan taftax lana biha abwaaba rida ilahi wa taysir wa tuxliqu anna biha abwaaba charri wa taasir wa taqdi lana biha jamica alxawaaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira anta waliyuna fa nicma almawla wa nicma alnasir ayuha almushahiduna alkiram fi daxili senegal wa fi xaariji alwatan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 di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura waaye di ziare ñi nekk ci hôpitaux yi te wéradi yàlla na leen yàlla delloo seen sago waaye di ziara it ñi nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg rek lu ñu di seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal bi ahsanil wujuh mbokk yi ñu ngi dellu siwaat di leen jaalewaat sunu kóllëre sunu wayjur sunu xarit sunu njiit sunu lépp muy Abdul Aziz Al Amin alladi raxala ila jiwaari rabbihi nga xam ne wuy jina boroomam ci fan yi passé di ko jaale askanu Sénégal waaye di ko jaale it ñi nga xam ne ñoo nekk bitim di ko jaale waa Sénégal di ko jaale umma islamique bi yëpp innahu kaana yujaahidu fi diinillah wa kaana yabdulu juhdahu kullal juhdi li xawaaiji nnaas mbokk Euh, moo xam ni wa ala kulli xaal ñépp xamoon nañ ni soxlaay nit ñi moo ko gënaloon soxlaam diine islaam moo ko ñoroon ci la daan dox guddi ak bëccëg suba ak ngoon ba soxlaay boppam sax daaw ko tal ngir soxlaay nit ñi ca Tiwaawan kon Abdul Aziz Al Amin euh, yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe ci àjjana yi yàlla na ko yàlla teere ci jannatul firdaws eh, ak képp ko fekk wa ala kulli xaal ñu ko koy ñaanal di ko jaale umma islamique yëpp di ko jaale Sénégal di ko jaale eh, gouvernement Sénégal di ko jaale waa Arabie Saoudite waa France Espagne Italie ñëpp amul fenn ci àdduna foo xam ne fii kàddoom àggu fa wala tànkam wala jëfam wala waxam wala lu baax lu mu fa def kon yu baax yooyu mu daan def yàlla na ko ko yàlla fay bi jaahi nabil karim yàlla na sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam teeru ko ci àjjana yi gën a kawe euh, mbokk yi dañuy ñëwaat nag tey kal aadati fi kulli yawmil isnain bu jot ci waxtu wi ñu fas yéene ànd ak yéen tey nag dañ leen indil liñ leen waxoon ñu fas yéene ko nag commencé suñu maam aadama fas yéene ko jaar ci yonent yi benn bu ci nekk ñu toppal leen ko gen xam yonent fi jaaroon ginnaaw rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wax nañ leen lu bari ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay jaar-jaaram jikkoom yi rafet ba yàlla tagg ko naan ko innaka la ala xuluqin azim yaa fi gën jiko ku mel ni yow doomati bay la yawmi diin kon sayidina muhammad jaar-jaaram yooyu ak mujizaat yooyu mu def fi xayaatihi nga xam ne ëpp na alfa mujizaatin ay ëpp na sax daanaka ay junni junni junni miracle yoo xam ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam def na ko ci dundam ñu indi leen leen ko lu ci bari toppal leen ko tey nag dañ ñëw ànd ak yéen ci ki nga xam ni kii mooy abul bashar muy aadam alayhi salaam ñu fas yéene commencé ko ca commencement ba mooy ci aadam nga xam ne mooy abul bashar moo meññ xeet wi wax leen kayfiyaam ak nu mu dikkee ak nu mu dunde woon ak nu mu nekke woon ci àdduna ba doom ya mu am ak ña ca topp ak ca topp ñëpp fas yéene nañu ànd ak yéen ala xaal ci aadam euh, muy abul bashar ñu bàyyi ci xel bu baax qaala almufassiruun bi alfaadin muxtalifa macaanin mutadafiqa inna allaha taala lama araada xalqu aadama alayhi salaam awxa allahu ila al ardi inni xaaliqu minka xalqan minhu man yutiicuni wa minhu man yaasini gis nga yàlla bi mu namee bind aadama dafa waxtaan ak suuf ne ko man kat dinaa wax ak yow ndax kat li may bëgg a bind ci yow laa koy jële waaye li ma ciy defar nag dina ci am ñu ma gëm ak ñu ma gëmul dina ci am ñu ma topp waaye dina am it ñu ma toppul waaye daal cosaan li ci yow laa koy jële ndax loolu may bëgg a defar ci yow laa koy tibbe defar ko gis nga mbokk mi waxtaan wu moom moo ne fa man ataani minhum adxaltuhul janna wa man asaani naa naara yàlla ne li ci ciy defar képp ku ma ci gëm ci lii may waaj a defar ma dugal ko àjjana waaye ku ma ci mayit ma dugal la safara ñu bàyyi ci xel ñu toppal leen ko nag muy ngeen xam mbir mi na mu tëddee diggante yàlla ak ba mu namee bind aadama ak waxtaan wi am diggante moom ak suuf summa bacasa ilayhi jibril alayhi salaam li yatii bi qabdatin min turaabin fa lamma ataaha jibrilu liyaxbida minha alqabdata qaalat il ardu inni audu bi izzati llahi an an arsalaka an yaaqusani minni cheyan yakunu fihi gadan linnaari nasibun gis nga yàlla dafa yebal jibril ne ko wàccal ci kaw suuf soo demee nga tibbal ma ci ay tibb indil ma ma defar ci li ma ci bëgg a def lu mu ñëwee suuf ne ko man de suma sañoon maa ngi lay xamal ne bëgguma benn yoon man suuf yàlla tibb ci man dara dem defar ci limu ci bëgg a defar ëllëg loolu mooy ko mu boole ko man mi nga xam ne bii maa nekk ci biiram te maay suuf mu boole ma ak waa dugal safara te bëgguma sama dara man suuf laal safara gis nga alxiwaar na jibril wal ard nga gis waxtaan wi am diggante suuf ak jibril mi nga xam ne yàlla yónni na ko da ko demal tibbal ma ak tibb nga indil ma ko suuf ne ko man de suma sañoon kenn duma laal kenn duma wàññi ndax bëgguma ëllëg li yàlla di defar mu may ko mu boole maag moom dugal safara te bugguma sama dara man suuf dugg biir safara mu yéeme lool waxtaan woowu dox diggante jibril ak ak suuf mu ne ko kon bàyyil su ma demee dina ko àgge ki nga xam ne kii moo ma ni man ndaw rekk la mbokk mi mbir màngoog mu ne ko inni audu bi izzatillahi alladi arsalaka an yaxusa minni شيئا يكون فيه غدا للنار نصيب فرجع جبريل عليه السلام إلى ربه ولم يأخذ منه شيئا جبريل daal di delluwaat ci boromam te tibbul dara ci suuf si mu demee yàlla ne ko ana la ma la yónni lu tax indi woo ko mu ko ah ki doon bëgg tibb de dafa gis boppam dafa naqarlu ne daal bëggul nga ku ko wàññi wàññeent boo xam ne ëllëg la nga cay defar su la moyee da koy dugal safara yóbbaale ko moom suuf te moom suuf nee na bëggul daraam nekk biir safara euh, moo tax ba mu waxee wax jooju euh, mettit lu lu boobu mujj ma ko tibb ma ne naa ñëw jottali la li suuf wax ndax yow yëpp yaa ñu bokk yilif man ak moom wa qaala rabbi istaazat billahi fa karihtu an aqaddima alayhi fa amara allahu wa jalla mikailu alayhi salaam yàlla ne ko toogal mu yónni beneen ndaw jibril toog mu woo mikaal muy mikail ne ko demal ma ci suuf nga tibbal ma ci béréb sàngam ak béréb sàngam ndax dama ci bëgg defar loo loolu ñu tuddee nit suma ma moyee ma dugal ko safara suma jaamoo ma dugal ko àjjana mikail daldi wàcc ci kaw suuf fa amara allahu azza wa jalla mikaila alayhi salaam fa ataa al arda fa staadat billah an yaxuda minha shay'a fa qaala al maliku maliku الملك الملك مالك الملك إني أعوذ بالله أن أعصي له أمرا gis nga ba mu ñëwee mu wax ko la mu waxoon Jibril moom suuf ne ko suma sañoon kenn du ma wàññi ndax li ñuy wàññi ci man ëllëg bu tegwul ci yoon jaamuwul boromam buñ koy lakk dañ may lakkaare moo tax su sañoon kenn du ma wàññi moom Mikaayil ne ko yow suuf daal li ma lay xamal mooy ndigalul yàlla lii mu ma jox pour ma ñëw tébb la mooma gënal foofu li ngay wax ndax man duma mooy mukk ndigalul yàlla te lu ma sante su neexee maa nga ca su naqaree maa nga ca su guddee maa nga ca su gàttee maa ngi ci kon dinaa la tibb yóbbu la jox la ki nga xam ne moomu yilif yilif la teg ko ci loxoom dégg nga tontu Mikaayil ci la ma tontu suuf noonu fa xabada xabdatan min zawaaya al arbaati min adimiha al ala wa min sibratiha wa tiiniha wa ahmariha wa aswadiha wa abyadiha wa sahliha wa xasaniha gis nga mikaayil nag commencé tibb tibb lu weex lu ñuul lu xonq lu jaune lu vert lu weex tàll euh, fépp ci suuf yi xeetu suuf yi yàlla bind ndax xeetu suuf yi dafa bari ñun dañuy yaakaar ne rek suuf suñu dox nii moo tax ñuy wax suuf déedéet yàlla bind na suuf su xonq su ñuul su vert façon bu nekk am na nee na mu xotti suuf si àgg fa cosaan li nekk tibb fa yooyu yëpp muy façon couleur yi bari mu dajale ko ba mu bari indi teg ko ci kanamu rabb samawaati wal ardi ne ko yii nga ma yónni woon mi ngi nii bu bleu bu rouge bu xonq bu vert bu euh, bu weex lépp dajale naa ko tibb ko fa ma ko war a tibbee indil la ko ndax lii nga ma yónni woon mu ne ko tegal sama kanam ma xool ko mbokk mi fa kadalika kaana fi durriyati aadam altayibi walxabiisi walsaalixi waltaalixi waljamili walqabix walidalika uxtulifat suwaruhum wa alwaanuhum xata qaala allahu taala wa min ayaatihi xalqu samawati wal ardi wa ixtilaafi alsinatikum wa alwaanikum gis nga suuf soosu la yàlla jël bind ci doomu aadama wuutey suuf soosu yi nag li muy tegtale ñu bàyyi ci xel su subula seeg su xonq seeg su ñuul si li muy tegtale yàlla bi muy bind dooma aadama yi dafa indi ku nit ku weex nit ku ñuul nit ku bula nit ku vert façon nit bu nekk yàlla bind na ko ci suuf soosu waaye it yemul rekk mbokk mi ci façon suuf yi àgg na ba ci jikko yi jikko yi ni suuf yi wuutee noonu la jikko yi wuutee ni suuf yi wuutee noonu la xel yi wuutee ni suuf yi wuutee noonu la xalaat yi wuutee ni suuf yi wuutee noonu la bëgg-bëgg yi wuutee ni suuf yi wuutee noonu la gis-gis yi wuutee kon ndeketu suuf yi wuute yooyu yàlla tànnoon ko ci biir suuf ba tax mu yónnee ko bind ci doomu aadama am na lu mu ci lu bari lu mu ci nam ma wone ci dunduk doomu aadama muy diggante ku xees ku ñuul ku gàtt ku njool ku diggu doomu ku matale ku matalewul waaye it mu yemul foofu rekk ci jëmm yi dafa ñëw ba ci jikko yi jikko ju baax jikko ju naqari jikko ju neex a xool jikko joo xam ne ji manes na ko dégg ak koo xam ne kii xalaatam ak xalaatu sa morom bokkul sa gis-gis ak sa gis gisu moromam du ñu bokk bëgg-bëgg yi di wuute suuf soo soosu ndekete li muy bari nekk ay façon yépp loolu la ci rabbu samawaati wal ardi gisoon te xam ne doomu aadama yépp mënuñu bokk jëmukaay mënuñu bokk nu ñuy xalaate mënuñu bokk lu ñuy bëgg waaye mënuñu bokk it ay gis-gis mënuñu bokk it jëmukaay ñoom ñëpp ñu bàyyi ci xel kon suuf yu wuutewu yooyu yàlla yónni Mikaayil ne ko dama jëli li ma ko mbir a ngi ci mu rëy rëy rëy eh, ñu bàyyi ci xel bu baax moo tax alquran wa min ayaatihi ci tegtalam yi moom rabu samawaati xalqu samawaati wal ardi mbindik asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar waxtilaafi alsinatikum wa alwaanikum dem na sax ba ci couleur yi nga xam ne yi moom lañuy ñuy làkke di ko communiquer ak suñu biir du benn façon làkk bi ñuy làkk dootul benn euh, suñuy melokaan du benn kon ndekete suuf yu wuute yooyu li ci nekk ci ay secret ak a bari àdduna bi lu muy rëy rëy kenn bokkul ak sa morom façon waxin daay lu muy rëy rëy rëy kenn bokkul ak sa moroom façon xalaatin façon gis-gis façon bëgg-bëgg ku nekk am na luy cër bu la yàlla séddee ndekete foofu la yàlla nammee bëgg nit ñi xam ni suuf yu wuute yooyu mu jël am na lu mu ci namm te ki mu ciy defar muy doomu aadama jikko yooyu yëpp ak melokaan yooyu yëpp daañu ko gis ci moom waaye it ñi xam ni cosaan la mooy suuf yooyu yàlla tibbaloo woon Mikaayil ne ko indil ma ko incha allahu ma def ci li ma ci bëgg a def mbokk mi mbir maa ngoog summa saida biha almaliku malakul mawti ila allahi azza wa jalla wa ma saida biha maliku lmawti ila allahi taala wa amarahu an yajcalahu tiinan wa yuxammiruha fa ajanaha bilmaai marwi lazbi walmulk xata jacalaha tiinan wa xamaraha fa dalika uxtalifat axlaaquhum suma amara jibril alayhi salaam an yaatihi bi qabdatin bayda gis nga loolu la yàlla jël suuf soosu def ci mélange bi mu ciy def mélange mooy mu def ci tëyin tëyin ci araab buñ koy wax moom lañuy tuddee ban ban nag mbokk mi dafa dafay laaj ñu leeral ko su ñu nee ban waxuñu ban bi ñu xam ñun ci sunu dund déedéet ban daal mbokk mi produit la boo xam ne bi yàlla rek moo ko am yàlla rek moo xam fu tiin nekk fi xaqiqati tiini ndax tiin su ko yàlla tuddee ci alquran dafay tegtale ne euh, secret la boo xam ne bi li ci yàlla dëxëñ bari na li muy defar bari na euh, produit la boo xam ne bi amul ci kaw suuf yàlla rek moo la mën a wax magasin yi mu denc ci tiin ci lay tibb def mélange mélange bi mooy nga am yax am yàpp am deret am suux amit squelette bi nga xam ne bii moom lañuy ñuy moolee jëmm doomu aadama loolu yëpp buñ ko boolee tabax ko mool ci doomu aadama defar squelette bi dugal ci yàpp deret sidit ba pare euh, fermer ko nag ak tëyin tëyin bi mooy li nga xam ne bi mooy mool nit ba ay cëram boo ko xoolee doo ko gis moom la yàlla def ci jëmm nit ba boo xoolee doo gis dara ci moom mool bu rafet jekk neex a xool tëyin boobu nag fa ko yàlla dañ ci moom rek moo ko xam waaye ci la tibb defar nit ba nga xam ne bii deret yi daw ci sa yaram bët du ko gis yax yi na mu tegaloo bët du fa àgg waaye li li ci biir di xol ak xel ak xëtër ak yeneen yi ci biir yépp bët day lott ci teg ko gis ko ngir rafetaayu mbindin mi ndax tiin ngi mel ni mason bu tabax ay birig jël sima raax naam boo xoolee di nga xam ni ci biir raax bi birig yaa ngi ci waaye doo gis birig yi ndax raax bu rafet bi ak peinture bu rafet bi ñu teg ci kaw raax bi ba tax mënoo gis birig yi ci biir loolu mooy tëyin bi nga xam ne bii moo ëmb sax saxsiyatu ibnu aadam jëmm doomu aadama ba jëmm ji rafet ku ko gis man ko xool mbokk mi ibnu aadama ngoog muy doomu aadama yàlla defar ko muy aadam ci jëmm ju mel noonu jëmm ju rafetoo rafetee noonu waaye li gën a yéeme nag ci li ñuy ñëw mooy bi mu digalee jibril mu indil ko tëyin mu defar ci li mu ciy defar yëpp dégg nga defar ci jëmm doomu adama ak rafetaay bi mu àndal moom aadam ak li mu war a àndal yépp nee na wa yaxluqu bihi aydan nuuru muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag balaa muy defar aadama nañ bàyyi xel nit ban boobu mu tibbaloon jibril ne ko demal tibbal ma ci indil ma ko defar na ci nuuru sayidna muhammad muy leeru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax boroom xam-xam mi di wax naan euh, awalul anbiya wa axiruhum moo jëkk moo mujj bu ñu nee moo jëkk mooy ban bi yàlla doon defar leeram la leeru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la ci jëkk a defar avant muy defar dara leer googu nag di jolli di wër ci biir asamaani juróom-ñaar xataa jaa al waxtu ba waxtu wi nga xam ni moom lañ ko war a génne door ñëw kon ñi bàyyi xel aadama mi ngi noonu euh, bi mu ko defaree ba pare nag daldi woo malaaka yépp ne leen euh, usjudu li aadama fa sajadu illa iblisa sujjóot leen ci aadama ndax maa ko ordone ñëpp sujjóot aadama ñëw ci buntu àjjana parce que yàlla bi mu bindee aadama mu ngi ko jël bàyyi ko ci buntu àjjana mu tëdd saa yi ñëwee du xool ne kii de guddaayam bi dafa tëraayam bi daa gudd cëram yi daa gudd waaye rafetaayam bi dafa bari saa yi ñëwee rek di xool aadama ni mu tëdde guddaayam ak cër yi parce que musuñu gis nit ku ñu bind li awali maratin pour la première fois ñi gis nit ku yàlla bind ci xaal bu mel noonu guddaay ba jëmm ja doole ja kàttan ja ak la nekk ci moom yépp saa yu ñu xëy rekk ñëw xoolaat ko demaat di xool di ñëw di dem di xool ba yàlla ordonné leen sujoot leen ci moom ñépp sujoot iblis ne man day kii daal duma ko sujootal ñu ne ko lu tax mu ne ko parce que yaa ngi ma bind ci safara te yaa ngi ko bind ci ban man maa ko gën duma ko su duma ko sujootal mu ne ko su fekkee ne man yàlla damay wax ngay dindi damay wax ngay teggi samay wax génnee naa la ci sama gouvernement yow yaag ñi la ñi nga àndal fu ngeen xam jëm leen fa mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko baax na waaye nag bàyyil xel ni comme que safara nga ma dikk diggoo ma àjjana ja sama mbokk yi digleen leen àjjana manit dinaa fexe safara soosu nga ma dig bés bu ma fay dem du man kenn maa fay dem dinaa fa yóbbaale ay gaay yu bari dinaa fa yóbbaale say nit ñu bari dinaa fa yóbbaale képp koo xam ne kii am nga ci moom yaakaar wala mu di la topp dinaa fexe ba wëlbati seeni xol wëlbati seeni xel ba ñoom ñëpp ñu topp ma ila naari jahannam ànd fa ak man ndax bu boobaa duma fa wéet yàlla ne ko amaana nga am ko sëf sama nit ñi baax ñi ñi nga xam ne ñi yatadarrauna ila llahi bakiyan mustaf mustaatafan ñi nga xam ne ñi amanu bi rabbihim imanan xaqiqiyan ñi gëm yàlla gëm gu mat sëkk mënoo ci ñoom dara ñi may jaamu ragal ma man yàlla mënoo ci ñoom dara yow iblis faxruj minha fa innaka rajim génnal sama état tàggatoo naa ak yow bés ni ki tey waaye na nga xam ne yowmal qiyaamati safara yaa fay jiitu keneen ku ñëw fekk la foofu tegu ci sa kaw ndax euh, képp ku dindi sama ndigal man yàlla euh, sak pay ëllëg mooy annaara jahannama xaalidan fiiha nga sax ca ba abadan ba ilaa yawmi diin ñu bàyyi ci xel Eh, muy lu am solo kon lii la ibliis bañ te yeneen malaaka yi nangu ko kon aadama ngoog yàlla bind ko mu nekk ci buntu àjjana eh, su yen buñ demee ba jëmmi jamono mu daldi di jóg toog jëmmi jamono mu tëddaat ndax ñàkk xam lu mu war a def waaye ñàkk xamit fan la war a teg tànkam ak ñàkk xamit fan la war a jëm euh, loolu tax na aadama xamul lu mu war a def ak lan la war a mébét ci dundam ndax ni mu ñëwee da ko bett ñëw gu la bett nag mbokk mi ci béréb boo xam ne bi amul dara kenn newu fa lu dul rekk al alfawaake wal asmar eh, furu yi ak yi ngay dunde yépp dara mànkewul waaye amoo mbokk amoo xarit amoo am di jàmm amoo ku la jege amoo ko waxal amoo ko mën a jëflanteel amoo ko mën a diisool yow rekk ci bunta àjjana loolu nag bokkoon na ci li gën a jaaxal sunu maam fa kayfa eh, yooyu tajawalu muy wër yaminan wa shamalan càmmoñ ak ndeyjoor di dox di dem di ñëw rek ngir jaaxle ndax li kawnihi munfaridan fil xayaati ndax li mu nekkee moom rek ci àdduna amul kenn ko ko wéttali gis nga mbir mi fa xalaqa allahu subhanahu wa taala min kulli qatratin nabiya fa kullu anbiyaai salawatullahi alayhim ala nabiyina wa alayhim min nuurihi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi aadamangoog xam naa ni incha allah dañ koy téye moom aadama ci fi ñu tolloog yéen ci buntu àjjana ji nga xam ne ni fa la ko yàlla tëral ak rëyaayam ak guddaayam ak rafetaayam ak jekkaayam ndax aadama façon xeeti rafet yëpp la yàlla dajale teg ko euh, bindee ko aadama ndax xam ni ëllëg xeeti yi génn ci moom dina nar bari ñu bàyyi ci xel waaye ci buntu àjjana jooju ñu ko bind teg ko fa mu tëdd fa fa lañ koy téye incha allahu ba altine bi di ñëw ñu commencé waat leen foofu wax leen naka la Adama dunde woon waaye it naka la nekkee woon moom rek ak coono bu mel noonu ak weetaay bu rëy boobu dinañ ci ñëw incha allah ci altine bi di ñëw di yàlla sutura ak jàmm yàlla ñu ko yàlla defal yàlla na yàlla tàppe xol yi ñu ànd nekk benn yàlla yërëm ñu yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar bi jaahi nabil karim làq ñu fa yàq yeggul waaye ubbil ñu it ay buntu wërsëg yaatu defal ko képp ku yeewoo ci réew mi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina wa habibihi wa rasulihi muhammadin ibnu abdullahi salaatan taftax lana ilahi abwaaba arrida wa taysir wa tuxliqu anna biha ababa charri wa taasir wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira ya rabbi ya ilahi anta waliyuna wa waliyuhum wa waliyu kulla man ala wajhi al ard fa nicma almawla ilahi wa nicma alnasir subhana rabbika rabbil izza amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء